mais est-ce que ci dialogue bi dialogue politique bi ëpp ci solo parce que bu neexee dialogue national Macky am na programme am léegi mi ngi wax lan budget programme moom lay dawal. Pape la dialogue national ak dialogue politique amul benn commission moo am muy commission politique bokk ci juróom-ñetti commission yi te loolu damay insister. bu la kenn yóbbaale ci loolu. commission politique bi dafa commencé xam nga li tax mu commencé li tax ma ne la dama koy seppil sax moom Macky. Hmm. doonul dara ci rapport bi. ñun ñoo ne bëggatuñu lii bëggatuñu lii bëggatuñu lii bu lii ak lii ak lii dindi buñ ko dindiwul. duñ def élection dootu duñ def élection dootuñu bokk ci élection. mu ne ñu def leen seeni proposition ñu def sunuy proposition bi ñu defee sunuy proposition fekk na booba lancé nañ dialogue bi le 28 mai. bi ñu defee sunuy proposition ñu ne ñu jël leen ñaar fukki nit yu bokk ci majorité bi ak seeni suppléant muy ñeen fukki nit. Mhm. jël leen ñaar fukki nit yu bokku ci opposition bi ak seeni suppléant muy ñeen fukki nit jël leen ñaar fukki nit ci ñu bokkul fenn booleeg seeni suppléant muy euh, ñeen fukki nit. Mhm. kon juróom-benn fukki nit war nañoo siège. Mhm. ñu jël société civile forum civil la fa. trois d nga fa. wal jooju Ndiaye xaw ma ban ONG la bokk mais mu nga fa. ak ñeneen ak ñeneen société civile ba ñëw. ñu ni suñu bëggee nekk. ba commencé dialogue bi lépp dañuy tardé d' autant plus que Famara bi nga xam ne désigné nañ ko ba pare tudd nañ turam depuis le vingt huit mai. Mm-hmm. nee na tant que. installé wuñ ko dara du ko mm-hmm. commencé. Mm-hmm. te suñu bëggee nekk loolu le premier décembre la ñu prévoir oon élection yi ñu ne lii ñu gàncax ci nu Macky sàll jëm ci élection ba tax ñu bañ a bokk élection. suñu ko commencé wul léegi. kon faaw ñu def élection yi le premier décembre parce que suñu deful euh, suñu suñu ñëwul assemblée. Mm-hmm. kon dañuy def élection yi le premier décembre. or li nga xam ne wax nañ ko ne faaw ñu dindi ko pour élection am mënuñu ko woon a régler balaa le premier décembre. absolument lii moo indi rapport ba. ma yàlla rek laay waxal xam nga ni man moom lu ma mënula a wax toog fay joxe. te <laughs> yàlla rek laay wax du fu ma Macky sàll demal du fu ma Aly Ngouille demal. Mhm. ba mu dama ko na dama nii ma ko nii ma ko waxee ci sa micro bii noonu laa ko waxee ca ca jaloog ba parce que dañuy yabal suñu ay nawle suñu ay nawle mooy plénipotentiaire yi mooy juróom-benn fukk yi ma la wax. ak mhm. société civile bi. ñoom heure bu ñu demee diggante talaata ak alxames ju ne. dañoo def ay OS mu tudd objectif spécifique. Mhm. daal dee ne bii OS dañ cee bëgg lii comme objectif. Mhm. bii dañ cee bëgg muy liggéey bu mucc ay ay xamkat tam mboq ko ay ay ay euh, juriste ca ay fonctionner de au niveau nga ca kenn ku nekk la gën a baax ca sa parti nga yabal ko ca mu ñu dem ba ñu demee ñoom te parti yépp a nga ca nag PDS doo nga ca nekkul. Mm-hmm. parti yëpp koy yaakaarul koy yaakaar na newu ca it. mu nga ca dialogue politique bi PDS. looloo tax sa mbokk journaliste yi nga xam ne dañoo bëgg a daganal dialogue politique tudde ko dialogue politique mais du dialogue dialogue bi benn dong la muy dialogue national bi nga xam ne moom la Macky Sall lancé am na nag commission politique commission politique bi ñun ñii ñoo décidé woon ni na commencé léegi ndax ñu mën a gàttandu premier décembre bi. ñu d' accord d' autant plus que. moom Macky ci boppam dañoo am ay gaz ba la ñuy dugg ci dialogue euh, commission boobu mhm. commission politique boobu ba la ñu ciy dugg mhm. dañoo am ay gaz yu leer ñi ci Macky mooy nee na lépp lu ngeen def dama koy fàttali fu ma toll lépp lu ngeen d'accord parti yëpp d'accord ci buy consensus loolu dama koy nangu acté naa ko lu ngeen d'accord ba yéen ñëpp ngeen d'accord ci acté naa ko lu ngeen juboowul nag foog ngeen indil ma ko ci bulletin unique bulletin unique wax nañ ko d'accord uñ ci. mais bulletin unique eh, soxna Aida xam nga ne wax bulletin unique wax fa dëgg neex yàlla dañ koo limal dëkk yi nga xam ne Sénégal. xam nga xam nga Sénégal ñoom fu ñu toll jàpp nañ ne ñoo war. raw dëkk yi ñoo gën a dellu mais rawaange mu ngi ci acte yooyu. waaw parce que yooyu ay exemple la yoo xam ni mooy wane ni man mii kat bu ma neexee ni dëkk sàngam maa ko raw mais gis nga Pape Alé. Mhm. xam nga Sénégal yabaate weesuwul sa moroomu lee dëkk nga daan ñak la xam nga ñak mooy lan. ñak mooy ca ginnaaw àll ba ña ñu tuddee woon ñag tey ñoo nekk ci digg bi. gàcce la ci ñun gàcce la ci dem démocratie bu dellu ginnaaw la ndax suñu doxaleen rek. suñu doxaleen ak frilosité boo xam ne nguur gi daf koo am nga xam ne yenn yi boo koy seet ba nga mu yàgg da nga naan ñàkk gëm di yàlla la ndax ku gëm ne suñu borom mooy joxe nguur am na yenn yu bëri yoo xam du la ci fekk. te hmm. loolu nag moom moom la ñu seetlu. mais bëgg naa nga wax ma est-ce que du ndëgg sarax tamit pour jàllale troisième mandat. papa le <laughs> troisième mandat mënu am. xam nga man ànduma ak Macky Sall. waaw mais yéenewu sax mu di ko xalaat. yéenewu ko parce que gis nga affaire troisième mandat def ne parce que d'abord man gëm naa ko. gëm naa ne du def troisième mandat te gëm naa li mu wax ne li ma ciy wax wax naa ko ba pare xam nga lu tax lu mag def dee bu dekkee dootu ko def. Mm-hmm. te Macky ëppul daraja Ablaye Wade ëpp ko manoore. ëpp ko jëf. Mm-hmm. te Ablaye Wade mag mu yàlla teral la. te troisième mandat jógu ko kon nan lay jige Macky Sall man jàpp naa ne xaritam yi ko gën a bañ euh, yi ko gën a bëgg tey ñoo koy éviter waxu troisième mandat wax waxuma la def de mais wax ak xalaat mhm. d'autant plus que mbir troisième mandat dem na ba léegi c'est le combat de la jeunesse africaine gis nga ci Afrique ci boppam mhm. d'ailleurs dëkk yi nga xam ni yépp seeni borom dañoo bëgg am jàmm ñoom ñoo commencé yeewu jënjël ni man dey bu ma kenn tudd ci troisième mandat kàccet ma ci <laughs> kàccet ma ci loolu doy na doy na misaal doy na misaal te man dama lay faral di dégg nga naan ku artuwul dina atte yaakaar naa ne li xewoon fii 2011 tab ale ngeen yéen ñëpp ngeen taxawu ci mhm. ànd ci daal ne du fi amee ñun ñu lii la président Ablaye Wade bëgg. dinañ ko ci jàppale. def lu nekk ma dugg ci biir réew mi jàpp ànd ak jigéen ñi jigéen ñi di wuti caution taxul mu jàll. taxul mu jàll mieux ba mu jàllulee leneen la moo ñu ci fekk. te nag président Macky Sall loola mu amoon jigéen ña ànd ak ànd ak Ablaye Wade di wut caution sax moom du ko ci fekk gis nga ña mel ni yéen. wëlbatiku ànd ak moom. Mhm. ca loolu mu bëgg nga xam ne ca la buruxlu ba nekk président de la république. ñooña ñaa ngi fàttaliku yu bëri de. yu bëri ma mere leen ci lool du ma la ko nëbb Pape Ali bu ma jàkkaarloog yow te waxuma la ne la chronique bu ma déglu ci yow rek mbëlee naa la chronique ma déglu ci yow nee naa la ñaw ñaw laa lay wax ñaw boo xam ni sama néeg man du ñëpp koy dégg parce que yéen ñi ma ñi doon sama wëlëri ñëpp dañ ma a bàyyi woon ndax xam ngeen ni man Ablaye Wade mooy sama xol mooy sama bakkan. ngeen. waaw moom ci dama lay wax man fii. ci démocratie bu ñuy bind livre démocratie. waaw ah Euh, Macky Sall mi dugg bindu ci benn ligne. ah non mais mais mais Wade moom ay chapitre chapitre. non mais yéen loolu dafa def leen dafa baax ci yéen. parce que xam nga àjjana bala moo neex nga génn safara dem àjjana waaye xam nga kañ la safara di metti hmm. nga génn ci àjjana dem ci safara. <laughs> te yéen loolu moo leen dal yéen dafa am dangeen ngeen doon euh, xal. Euh, far nag am daay. <laughs> waaw daay léegi <laughs> waaw ba laaj la beneen li ma dégg man est-ce que dégg nga ko ñu leen dañoo bëgg a. Hmm. nommer maire Dakar par waa dégg naa sax ñu ni ci dialogue bi lañ koy jàll. <laughs> dama waaru sax mais loolu du recul démocratique. non. loolu scandale la loolu loolu loolu euh, il faut nga wut beneen moo bu gën a garaaw scandale. loolu du du lu kenn xam te loolu gis nga loolu bu fekkee ne loolu dañ ko bëgg jàllale ci dialogue bi dialogue bi day tas. du tas rek day rajaxoo bu boobaa kay du tas rek day rajaxoo ak ay conséquences am. Mm-hmm. nag. ku nekk jël sa parce que nag man mbir mi kon day mel ni dafa am benn sëriñ bu bu bu bu wax rek ni ko defal lu la neex muy test ndax sëriñ bi mën na wala déet waaye bu boobaa jaloog bi du tas rek day rajo xoo parce que loolu amul ku koy nangu gis nga Pape Alé dinaa la defal benn confidence. Mhm. gis nga mois de mars bii di ñëw incha allah. Mhm. war naa soutenir benn thèse. ah thèse doctorat. xam nga lu indi thèse bi. Mhm. dama doon def ay études de relations internationales. ma commencé. Mhm. bind sama projet de thèse. Mhm. bind def ko ci terrorisme def l'impact du terrorisme sur les relations internationales africaines. gis nga biñ ma destitué. te du ma noppi mukk di la gërëm ñang billaay ku ne da nga faral nit te itam kenn ku ci nekk am na bis boo xam ne faral nga ko am na benn bis boo xam ne li wolof yi di wax naan. Euh, mag lu mu bëgg a wax te mënu koo wax ko ko ko waxal mu jël. Mhm. billaay man sa chronique gu 28 avril 2016 ba keroog waxal nga ma loo xam ne moo nekk ci sama xol te booba yaarax mujj Cheikh Sidi Makhtar nee na ma bul wax. Mhm. du ma ko mhm. fàtte mukk moo tax duma la féetale kenn du ma nangu ni kenn la moom. <laughs> du ma nangu ni kenn la manipuler du ma nangu ni kenn la fay. ndax man ba nga koy def booba gisante wook man sax. Ah, waaye def nga sa liggéey journaliste analyser nga rek xool méthode bi ma yore. Mm. gis nga keroog bañ ma destitué. le 22 avril euh, le le de avril 2016 ca laa ñëw Babacar Diallo maa ngi koy nuyu suñu éco directeur école doctorale bu CDS. ayoo ah, ñoo bokkule kon. mu ngoog <laughs> waaw kay exactement. ma ñëw daal de ni ko man de dama gis ci programme bi coopération centraliser mu ne ma wax décentralisation ci biir man ko dama bëgg a changer de sujet mu ne ma ay da def nga euh, kii ba pare def nga projet de thèse ba pare man ko pareegu ma mais dama bëgg def réforme xam nga moom nag il est élégant hmm. ma ne ko man dama bëgg ne il faut qu'on abandonne l'état jacobin mu ne ma non non non bul wax loolu loolu c'est trop dur ñu daal di wut beneen kile euh, nouvelle réforme hmm. portée sur la gouvernance territorialisée pare naa ko maa ngi am encadrement wu le prestigieux professeur Babacar Gueye Babacar Gueye waaw le professeur Babacar Gueye moo may encadré maa ngi koy gërëm di ko sant hmm. donc ñu nekk ci gis nga bi ma pour te dire xol bu tàng ni mu mën a pousser nit dafay gonfler nit. Mm-hmm. en quinze jours en moins de quinze jours presque une semaine bind naa dix-sept pages yi nga xam ne mooy projet de thèse bi. parce que daaw du ma nelaw guddi parce que dafa am loo xam ne boo koy génne ci sa bopp di ko génne ci sa yaram teg toor de ñu teg la toor boo xam ni mënoo fayu noonu rek nga ko mën a fayu bi ma ñëwee ci grand oral bi. Mm-hmm. pour ma nekk doctorante. jury bi daf ma ne première mérite bi nga am mooy defuloo comme sa mbokk politiciens yi demuloo di xeex ci rajo yi demuloo di woo ay xale pour ñu sànni xeer ak di hmm. lakk pëna da nga préféré xeex ci espace universitaire sur le plan académique nga préféré xeex mais yow Pape Alé man ma tuddee loolu nga xam ni dañu nangu sama suffrage ay électeurs nga xam ni keroog bi nga xamee ni gañe naa ñaari ministre en fonction yi jour boobu yow mii yaa ma tuddee Mm-hmm. lion lion di bawal ni ma yow mii yaay lion di bawal mm-hmm. keroog la lion di bawal génn defe naa dégg nga ma di ko expliquer benn nit mm-hmm. benn sa moroom journaliste ma doon laaj fu lion di bawal jógee ma ne ko dafa am benn journaliste boo xam ne guddi googu moom mu doon suivre élection wu Bambey guddi gi bi ñaari ministres yi tëddee te ba ñaari ministres yi tëddee xamoon naa ne dina leen dina leen dàq parce que loolu mënu ko supporter te foo seetloo ku gañe ministre am rek def na la naka sudul noonu moom la def Khalifa Sall parce que ba ngeen ma laajee dama ne leen Khalifa Sall lii muy def président Macky Sall xamoon na ne mu ngi ci te bu fekkoon ni tey mi mi ma mu yebaloon moom moo gañe kon kenn du ko def dara parce que du la baal loolu loolu moom du la ko mus a baal moom. waaw mais bu bu ay ministre am tëlee tëlee nag. mais dafa mën xarit ak mën a xaritoo moom kay problème bi mooy est-ce yow xaritam nga mais xaritoo moom mën na ko. mën na xaritoo ba nga xam ni liñ naan bëtu mbëggeel jël na gàkk mhm. moo ci nekk ak lu gàkk-gàkk bi toll nag ak lu gàkk-gàkk bi toll moom bëtu mbëgg moom ku mën xaritoo la moom ku mën xaritoo la soxna Aida nomination maire Dakar moom loolu kenn xalaatuñ ko xalaatuñ ko te yaakaar naa ne dialogue bi ñu ngi bëgg ñu ngi ciy am yaakaar gis nga dialogue bi moom. Hmm. wax dëgg yàlla ku la wax dëgg. Hmm. ñu ngi ciy bëgg am yaakaar te itam ku bëgg jàmm ci Sénégal wala nga bëgg ñu waxtaanee mbiri senegal wala nga jàpp ni mbiri Sénégal ci waxtaan la war a fajoo warta fajoo ci fitna. Hmm. rek di nga soutenir dialogue bi te ñun opposition bi kat xamante nañ ku nekk am na looy topp. fi mu nekk nii am na ñoo xam ne suñu leen ni woon contrat pétrolier yi nga xam ne moo fi amoon dañ koy réviser am na ñoo xam ne ñëw ci dialogue bi waaw. ndax am na seet ay xarit yu nekk bitim réew yoo xam ni bu doon seen sagu ñu dindi contrat yi fi nekk. bu ñu leen nee tam ñu ngi ñu ngi préparé waat parce que loolu bokk na suñuy suñu terme de référence. nouveau contrat yi nan lañ koy libellé parce que am nañ ay audition ñëpp ñi nga xam ne contrat yu njëkk ya defoon nañ ko dinañ ñu wax nan lañ ko defaree. ci dialogue ci dialogue bi. nouveau contrat yi dinañ wax ci nan lañ koy defee phosphate bee ca Bambey dañ ni woon petite mine la dina dem euh, grande mine dinañ xam nan lañ koy octroyer licence bi. licence yi ñuy octroyé yëpp ak ah, yow tam ñun du ñu dem tool yi fa bayit du ñu ay faire valoir am na ñoo xam ne bu leen séedee ñuy ne du ñu faire valoir <laughs> xam ñuy def eh, dañuy def benn pause publicitaire eh, continuer waxtaan bi parce que ku la topp <laughs> sunu eh, ñi nga xam ne mooy